dalati leen ak jàmm ci li gën a fës ci xibaar yi ci site internet bi dañu koy daal di doore ak député Moustapha Cissé Lo mi nga xamante ne nag daal di na yóbbu ñaar ci ay doomam ca kanamu yoon ginnaaw ba mu bindee ab plainte daal di di koy jébbal division des investigations criminelles bu ñu sukkandikoo ci journal bi di les tribune tribune daal di dikk ak ñun ginnaaw bi nga xamante ne nag Moustapha Cissé Lo daal di nañu koy dàq ca parti bi di Bennoo Bokk Yaakaar ak ca APR waral na nag plainte jébbal ko wàllum dikk li ko waral rek jàpp na ne ay doomam dañaa nangu ay téléphone portable am daal di koy dem tëral fa nga xamante ne moo di ca l'hôpital ngir mu mën a amal ay noppaliku ca waxtu boobee nag doom ya ñu ngay xam ne ni seenug bàyyi saa sile tembe yaram bi dafa daal di sonn kon nag yell na ñu yóbbu ko ca l'hôpital ñu daal di addu wax ci beneen mbir ginnaaw révélation yi nga xamante ne nag kii di Serigne Moustapha si daal dina koy def daal dinay xam ne nag daal ne saa sile njiitu réew mi ay fétis ak sarax yam doon def loolee moo ëlbatiku këpp ci réewum Sénégal bu ñu sukkandikoo ci responsable moral bu daayira Moustarchidine wal Moustarchidaty yi moom nag daal dinay def ay révélation daal dina ci ñaari mandat yi nga xamante ni nag njiitu réew mi daal dina koy am fi génn àddina ci ay nit ñu baax waaye tamit li fi réewum Sénégal daal di ñàkk ci seenug dooma loolee lépp dara waralu ko rek lu dul njiitu réew mi ay fétiche yi nga xamante ni nag mu ngi ko doon def ngir daal di falu bu sukkandikoo kàddu yi nga xamante ni nag Serigne Moustapha Sy daal dina koy addu Talas Quotidien daal koy reprendre défendre Serigne Moustapha Sy mu ngay xam ne nag ne saa si le tembe réewum Sénégal ginnaaw bi nga xamante ne njiitu réew mi dafa jëloon lenn ci ay nag yoo xamante ne amaguñu juróom benn weer wala bu ñu ko amee ca la ñuy yem daal di tuur seenub deret def ko ay sacrifice ci élection présidentielle yi ñu génn ngir bëgg a faluwaat suñu sukkandikoo ba tey ci Serigne Moustapha Sy daal di ne yooyu le sacrifice nag dina wex xàtt ci réewum Sénégal ginnaaw wàllum fétis moom lu la may tey suba di nga ko ko fayee leneen kon nag jot na ngir njiitu réew mi gën jekkalaat gën xoolaat ab toogaayam du samay kàddu Serigne mustafa si moo ko béral ci journal bi ñuy woowee L'As ak Le Quotidien beneen nu ko taskatu xibaar boo xamante ni nag gisoon nañ ay image rek ginnaaw ba muy présenté journalu 19h45 ca Sen kii di Néné Aïcha Ba nag moom mu nga dem ca page Facebook am di rafetlu bu baax a baax taxawu bi nga xamante ne askanu Sénégal ak taskatu xibaar yi rek ñu ngi ko koy woo ak di ko envoyé message di xool wàllum wér-gi-yaramam Néné Aïcha di xam ne ni saa si tembe nag wér na bu baax li ci ëppoon rek moo di ab tiitaange waaye nag du dara lu garaaw loo xamante ne doppeekoo na ca feebar googe wàllum suuf bi nga xamante ne nag bés bu yàlla sàkk rek dossier yaa ngay gën di wullee ñaay bu ñu noppee ci coowal nengeleer ak jilaax bi dox ci diggante Babacar Ngom njiital Sedima saa sile tembe nag beneenub scandale foncier daal dinay génnaat dal di ñeel député maire bi nga xamante ne moo nekk ca kër Samba Kane nekkee ca département journal bi daal dina koy indi ñu ngay xam ne ni kii di Khalil Ibrahima Fall moom mi nga xamante ne nag dañaa jàpp ne ci lu tollook 250 hectares ci ay suuf la daal di jël rek daal di cay toog daal di koy jox entreprise sénégalaise des travaux d'équipement agricole et des énergies renouvelables ginnaaw bi nga xamante ne moom nag ab co-gérant la ci maanaam lépp luy jëm ci wàllum gérer boobu la société loxoom moo nga ca biir saa si nak tembe waral na ba ñuy sàkku seenug suuf kaw Yakham Mbaye ak ki nga xamante ne rek moom moo di Farba Ngom ginnaaw ba mu jàppee ni rek daal di ne kii di Moustapha Cissé Lo dàq nañ ko fa nga xamante ne moom moo di ca APR ka a tegu kay du kenn ku dul Yakham Mbaye ak ki nga xamante ne rek moom moo di Farba Ngom ginnaaw saagante yi ñu nekkee bis bu yàlla sax waral na nag ba Youssou Touré daal di taxaw di sàkku ci njiitu réew mi ngir mu jël ay responsable am waaw coordonnateur des enseignants de l'APR di xam le ni ca Walf Quotidien daal di ne saaga yu ñaaw yi nga xamante ñu ngi benn yoon falub njiitu réew mi keneen koo xamante ni nomba tànkam nag boo moytuwul rek dinañ ko tekki du kenn ku dul secrétaire général du SYTJUST bi nga xamante ne nag dafa daal di nekk ab grève boobaak léegi mu daal di def ñaar ci ayu bés yoo xamante ne tegul tànkam ca biroom ba bu ñu sukkandikoo ci L'As Quotidien ñu nga ñuy xamal nag maître Malick Diop saa sile tembe rek ginnaaw bi nga xamante ne cour d'appel bu Kaolack di Ousmane Kane mu ngay naqarlu bu baax a baax grève boobee tey xam ne ni dafa daal di def ab abandon de poste kon nag yell na ñu daal di yëkkati ay daan teg ko ci kawam maanaam daal di rëq ab ndiggam remaniement ministériel bi ana boobaak léegi lan moo ko tardé la bu ñu sukkandikoo ci ay xibaar yi nga xamante ne tribune daal dina koy joxe mu ngay xam le nag daal di ne boobu le remaniement ministériel dara terewu ko am rek lu dul doomu jàngoroy mbas mile ba tey ñu ngay xam ne ni njiitu réew mi jàpp na ni bu amalee ab remaniement ministériel ci jamono jile rek dina nekk loo xamante ni dina tardeel lii ñuy woowee fast track di liggéey bu ni dërëm yooyee ngir ñu daal di koy amal kenn ku ci nekk ci secteur ba nga am waaye loolee sax nag dàqul benn yoon ne dinañ indi ay coppite ci biir gouvernement bi ba tey ñu daal di àddu wax ci wàllum trafic de drogue ginnaaw waa ji ñuy woowee Abdou ab Abdou Seck mi nga xamante ni nag daal dinay bokk ci benn réseau bu mag boo xamante ni rek dañuy trafiqué lépp lu jëm ci wàllum yamba te nekkee ci diwaanu ko banlieue bi ci diggante yëmbal ak fa ñuy woowee kuunuun ca waxtu bi le nag bu ñu sukkandikoo ci les échos loolu mbër bi ñuy woowee Siteu ginnaaw bi nga xamante ne brigade de recherche ak police bu yëmbal sud daal dina ñuy booloo seenu doole di ko wër saa si tembe kenn tegu ko ay bët waaye Siteu nag ba mu déggee mbir mu ni mel daal dinay ñëw rek fa xamante ne moom moo di ca police ba ca police bu yëmbal sud li muy sàkku rek mooy benn oto karkaatam boo xamante ni nag saa si tegu ko ay gët waral na nag ba saa tembe Siteu di xam ne ni ñett ñoo xamante ni jege nañu loolu kii di Abdou Seck nekk mbër bi nga xamante ni dafa doon faral di ànd ànd ak moom daal di nañ leen di teg loxo waaye nag mbër boobee mu ngay xamle ni lépp lu jëm ci wàllum trafic bi ñuy woowee yàmba laalewu ca takkewu ca ca Italie nag nga xamante ni ñaari doomu Sénégal daal di leen di teg loxo ba tey bu ñu sukkandikoo ci Les Échos yéenekaay mu ngay xamle nag daal di ne kenn ku ci nekk am na ci lu tolloo ko 32 ans ka ca des daal di am ci lu tolloo ko 40 ans daal di nañ leen di teg loxo te dara waralu ko rek lu dul wàllum drogue waaye tamit yor ay këyit yoo xamante ni ay faux la kenn ki nga xamante ni nag njëkk nañ kaa teg loxo fekk ak moom 70 kilogramme boo xamante ni marijuana la di xeetub dorog boo xam ne ñu nga koy faral di jëfandikoo beneenub sénégalais boo xamante ni nag fekk nañ ci moom ay këyit yoo xamante ni ay këyit yu baaxul la waral na ba saa sile tembe rek nga xamante ni dañ doon amal ab patrouille boo xamante ni ñu ngi ko doon amal ci diiwaanuk Italie ñaari doomu Sénégal yooyee ñu ngi ci loxol yoon keneen ki nekk ci loxol yoon du kenn ku dul activiste bi ñuy woowee Assane Diouf Assane Diouf mi nga xamante ni nag daal dinay saisir chambre d'accusation bi ginnaaw sàkku rek mooy ñu daal di annuler procédure bi ndaxte nag jàppub Assane Diouf boobee coow la mu jur si ko yéene kaay daal di ne kii di maître Ciré Clédor Ly moom nag mu ngay jàpp ni tegub loxo boobee ñu teg loxo kiliyaanam méngoowul benn yoon ndaxte bu fekkente ne diwaanuk Ndakaaru ñoo ko daal di jàpp warul woon ndaxte procureur bu Pikine moo ko waroon a jàpp kii di Assane ñu sukkandikoo ba tey ci ay avocat wam ñoom nag ñu ngay jàpp rek ne kii di Assane Diouf nga xam ne teg nañ ko loxo benn fan ci weeru juin gi ñu nekk ci 6 heures du matin di jot loolee nga xamante ne nag nee nañ dafa yëkki ay saaga daal di koy jébbal njiitu réew mi président Macky Sall ca waxtu boobee nag daal di nañuy jàpp ne atte ba yellul muy àgg ca diwaanu ko Ndakaaru nañu ko yemale ci tribunal départemental bu Pikine séddaleek dund gi di aide alimentaire sastile tembe nag daal di nay jeex bu ñu sukkandikoo ci ki nga xamante ne moom moo di Mansour Faye Mansour Faye bu ñu sukkandikoo ba tey ci L'As quotidien mi joxe boobu boobule xibaar mu ngay xam ne nag ni séddale ceeb googee daal dinay jeex li nga xamante ne ñoo ci nekkoon ci ay doomu aadama nekkoon ay vérificateur toll ci limu ko 5000 saa sile tembe nag jot nañaa génnee ci lu tolloo cent 350 million yoo xamante ne rek moom mooy doon seenub ndàmpaay bu ñu ko séddalee ku ci nekk di nga ci am 70 000 francs ñu fas yéene leen kaa fay ci ñaari tranche tranche bu njëkk bi sax kii di Mansour Faye mu ngay xam ne ni par gi nag disponible na mënees ñaa dem jëli seenub xaalis fa nga xamante ne rek fa la ñoo bindu woon des ci banlieue bi wax ak musiba mbaaba kumba gi nga xamante ne nag moo am ca diwaanu ko caaroy géej ca caaroy géej googee nga xamante ni dongo ya ak tuut tànk yi jàpp nañ ne ñu ngi ci ay vacances waral na nag ba plage yi dafay daal di fees dell bu ñu sukkandikoo ci ay xibaar ñett ci ñoom daal dinañ ci ñàkk seenug bakkan L'As Quotidien daal dina waaw kenn ki sax daal dinañuy gis boobule koor ndaxte ab benn maître nageur nag moo ko daal di gis waral na ba saa sile tembe rek ñuy woo collectivité territoriale yi ngir ñu gën a ñëw renforcer li nga xamante ni rek moom moo di moyen de sauvetage ndax ña fay ñàkk seenug bakkan saa bu tàngaay jotee lim ba day gën di yokku ñu daal di wax ci wàllu wàllum football ginnaaw Paris Saint-Germain mi nga xamante ne nag daal dinay dóor juróom-ñeenti bal ci dara ak équipe bi mu doon jàkkaarloo di Havre ca waxtu boobee nag ñu ngay xam ne ne ab match amical lañ doon amal dimanche gi ñu génn ki nga xamante ne moo di Idrissa Gana Gueye daal di lakk caaxi ci juróom-benneelu bii bi ñu ngay xam ne nag ne saa soosee ba mu dugalee bii bi deful lenn rek lu dul daal di def ab à di rendre hommage ki nga xamante ne moom moo di George Floyd moom mi nga xamante ne nag boobu nañ ko ca diwaanu ko États-Unis ginnaaw bi nga xam ne wàllum racisme moo ko waral ab l'accident bu metti bi am ci diiwaanu Kaffrine ginnaaw bi nga xam ni ñeent ci ay doomu aadama daal nañ ciy jëlee ay gaañu gaañu yu metti mbir ma nag mu nga am dimanche ca fa tolloog Dayane Dayane Nenne nekkee ca région bu Kaffrine accident boobee nag ci biir 18 heures di jot fa ñuy woowee Mbirkilaan tolloo ak Kaffrine ci benn village bu Dayane Nenne la benn 4x4 ak benn oto sept places ca waxtu boobee nag ñu ngay xam ne ñeent ci ñoom jëlee nañ ci ay gaañu gaañu yu metti bu ñu sukk sukkandikoo ci suñu mbokku taskatu xibaar ya nekk ca Seneweb ñu àddu wax ci tolluwaayu ko jàngoro gi ginnaaw bi nga xamante ne jëwriñ gi yor wàllum wér-gi-yaram ak action sociale nam koy béralee bés bu yàlla sàkk mu yemboo ak altine fukki fan ak ñett ci weeru ko juillet gi ñu nekk ñu ngay xam ne nag ne ci limoo ko 710 test yañ doon amal 63 daal dina ñuy dellu si amee doomu jàngoro gi ñu ngi xam ni 50 yi ay cas contact lañ waaye nag 13 yi nekk ay cas communautaire ca waxtu 68 ci ay doomu aadama yu amee woon doomu jàngoro gi saytu nañ seen wàllum wér-gi-yaram ba ñu wér ba fas yéenee dellu ci seenu njaboot 34 ñoo nekk ca diwaanuk sauvetage yeneen ñaari doomu aadama ñàkk ci seenu bakkan ba mbas mi dooree ak léegi nag ci réewum Sénégal ñu ngay xam ne rek daal ne lim bi toll na ci 8198 doomu aadama ya ko amee waaye 5514 yépp faj nañu leen ba ñu wér téeméer ak juróom fukk ca ñoom daal dinañ ci ñàkk seenu ko bakkan 2533 yoo xamante ne ñoo tëdd ca lalu l'hôpital ya ñuy saytu seen wàllum wér-gi-yaram